Gaston production. xoolal petit petit promoteur moom plateau yëpp da ciy toog. kooka la. petit promoteur plateau yëpp da ciy toog. ay ay ay ay ay bés bàyyi jàmbur petit. ah coach Funky Boxing le grand coach le coach des coachs maa ngi koy nuyu. le grand professionnel Fabrice Alouche. mais prince maa ngi lay ziar yaa ngi waajal yaa ngi waajal ah balaa muy ñëw ci. waaw maa ngi si waajal bi. ah yaa ngi ci waaj di nuyu ñëpp. Mhm. waaw di nuyu ñëpp. Mhm. di ziar ñëpp. waaw sant yàlla bu baax macha allah di wax ga gars yi namoon naa leen quoi mm-hmm, mm-hmm, taa ñoom mm-hmm. maa leen ni percuté euh, yax sa gars yi pour ngeen dugal ma waaw parce que gars yi dañ may dañ may ma dugal si live dugal si live ndeysaan yeah ndeysaan parce que naanaan nga nag jamaïcain moo jamaïcain benn sëriñ moo koy woo moo koy vocal waaw di ko wax ko muy jaay mën mënul dara ah vocal yaa ngi si téléphone am na tax sëriñ yi ñooy wax jamee kenn du làmb yi di demee ñoo koy jox ñoo koy defal vocal billahi wallahi muy ñëw fii di jaay xam-xam xamul dara presse luy dëggal loolu mhm. am na yenn combat yu am arène nationale mhm. jamaïcain ma ne ko alors loo gis tey mais mhm. jamaïcain bàyyi na analyser jamaïcain du analyse day ñëw ne ma am na loo xamante koo xamante ne musuma wax luy dem ci làmb nee na ma nii ak nii Bombardier Balla Gaye boo moytuwul dañuy match nul te bu ñu match nul loxo Bombardier dañuy yëkkati ma ne ko da ngaa dof Bombardier Balla Gaye fu ñu match mais noonu la demee nag noonu la demee day wër di sëriñ yëpp xam na leen du sangoo saabu moo tax mu ñuul noonu <laughs> lii révélation la lu garaaw laa lay wax dalee sëriñ rek la gëm kon am na sëriñ ñuy gis làmb ceeb dara am na sëriñ ñuy gis làmb gis bu dëgg dëgg gis bu leer mais dañuy gis làmb dëgg dëgg Euh, kii bës. waaw am na sëriñ yi gis làmb. Mm-hmm. làmb day dem ba jant bi soow mu féetee euh, Pikine. Mm-hmm. ñu dem ba timis passé mu dem géejawaay. Hmm? waaw. mais Papa Diop numéro 2 may ma 3 minutes rek ma daaneel ak presse soog la jël Papa Diop 2 mooy sama invité mais presse. parce que yow dama la waroon jël dama la waroon jël soit guddi wala demee ci live bi ma bëggoon def. mais dama bëgg presse non non non mhm. presque il faut mu ñëw comme dugg nga ba pare amateurs yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi am l'eau à la bouche avant Papa Diop deux di di ñëw parce que tey Papa Diop numéro deux tey laay bu tàng laa nar a def ak moom incha allahu rabi mais presque dëgg la mhm. xam fu mu toll nii ci côté mhm. jekku Balla Gaye dëgg booy ñaa damay dem rek si historique ñu wax si combat Balla Gaye ak euh, Yékini balaa combat bi sëriñ bi daf ma ne. Hmm. benn sëriñ daal daf ma ne. Hmm. combat bi suñ ko bëree jant bi leer nañ. Balla Gaye daan. Hmm? waaye fu timis tegee du ma ne la Yékini mooy daan de ndax Balla Gaye jekku na waaye Balla Gaye du ko du ko daan. waaw. te keroog làmb lu raar moo am keroog làmb ji buñ koy siffler Yékini ak Balla Gaye mu ngi leer nañ. dafa leer nañ. Ah, loolu bëri na ci Mm-hmm. sëriñ bu taxaw ne la ni que Boy Niang moo jekk wala mm-hmm. Balla Gaye moo jekk mm-hmm. daa bëgg lu neex nit rek waaw lamb bu lëndamee nii gëj na fee am presse looy wax nii yow tamit nag lu doy waar laa lay wax presse lan wax nii gis nga ñaari famille yoo xamante ne famille yonent bi lañ mooy shérif yi suñu jàppee si benn mbir mm. tànk amul xale yu yara dukk yu si bokk. Hmm. mooy xam nga boo gis xeet boo gis am na koo xamante ne day tegg waxu kilifa. waaw. waaw mais tant amul xale bu mel noonu. si hmm. famille. Hmm. Euh, lamb bi du féetee fenn te noonu la demee fu mu toll nii. maanaam su ma déggee sërif yi ñoo ngemb booy ñaar. di ko ñaanal te sërif saa yi. ci làmb lamb ji du leer day lëndëm. kenn mënu la ci wax lu leer te dafa am sërif yoo xam ne ñi ngi booru Nimzat mhm. booru Mauritanie mhm. booru Louga mhm. ñi ngi si làmb ji di ñaanal booy ñaan hmm? waaye am na sërif yu nekk Casamance hmm? Daara Salaam Daara Salaam ak Bangeer ñi ngi ñaanal Balla Gaye ilaa illallah si doy waar laa lay wax mais mais mais mais presque. Mhm. Balla Gaye kon Balla Gaye fan ak fan ak fan la ngemboo ci combat bi. non munum su ma la nee fii la ngemboo feneen damay fen waxuma dëgg. waxuma dëgg. man presque nit de source sûre. Mhm. nit ku jege lool. Mhm. wàcc na aéroport mari gis Balla Gaye. waaw. ne ma maa ko gisal sama bët aéroport Mali Balla Gaye sol benn capuchon. ànd ak Baye Ndiaye. xaw ma Baye Ndiaye la xaw ma. naa la ko xamal bu muy bëreex Modou Lo. waaw. am na bugguma wax nag directement ñu xam ne lii laay wax mais am na ñu ñaar ñu nekk Mali. waaw ñaar ñu nekk Mali ñoo xam ne ñoo defoon la différence. ñoo daan Modou Lo ñaari maara. bu dee Serigne moo daan Modou Lo. waaw am na ñaar ñu nekk Mali ñoo daan Modou Lo. ñooñu nañ leen ci géewu làmb. Euh, du ñu ñëw si làmb. mais si am na beneen affaire bu ma dégg bu ma jaaxal itam. Uh-huh. Balla Gaye am na ku mu doon àndal ci làmb benn paa bu mu doon àndal ci làmb bu njëkk. ñu ne mm-hmm. paa bi jamono ji transhumé na ci booy ñaar te paa boobu noonu. gis nga bés bu premier janvier jotee paa boobu ku ko gis mu dugg si. ànd ak mm-hmm. booy ñaar numéro deux. xel mu bëri dinañ jaxasoo ndax paa boobu noonu. amaana mun nañ ko fàtte mais ku ko gis rek. Mm-hmm. gisoon nga Balla Gaye numéro deux. mooy li ma lay gis nga làmb day loolu da ciy am da ciy faral di am parfois ñu jiiñ ko nit sax fekk lu lu ñu wax amul mais li ma la mën a wax rek mbër su demee ba xuloox sëriñ ñi tax ñuy bañ mbër xuloox sëriñ su demee ba xuloox sëriñ soo amee adversaire sëriñ bi mooy dox dem ci sa adversaire mbër su amee problème sëriñ ñëwal ñëwal Dóor presse. Euh, mbër su demee ba am ak problème. sëriñ bi mooy woote. woote ay xamee lu mbër bi. pour dem si mbër bi. si mbër adversaire dafa mel ni leeratul. mais presse man damay génn tuuti ci cadre sëriñ bi parce que dama bëgg a def transition Papa Diop numéro 2 dama koy jël ci cadre làmb. waaw mais presse. dama bëgg nga wax ma. presse dama bëgg nga wax ma. prince mhm. combat Balla Gaye ni tactiquement techniquement combat bi kan moo ëpp avantage na prince ku xam làmb nga mhm. waaw bés combat bi dafa doon combat boo xam ne ku si bàyyi sa mënin waaw tu risque de perdre ton combat mhm. tey Boy Niang dafa am nu muy bëree day bëree tactique di arrière di jàpp waaw te pied droit lay jiital te pied droit boobu méngoowul ak bëre Balla Gaye Mm-hmm. li tax bëri Balla Gaye di yombax Modou Lo Modou dafa gàtt ba pare bërëm jublu Balla Gaye te pied gauche bu muy jiital la mm-hmm. tey booy ñaar mm-hmm. bu fekkee dafa bëre ak stratégie di arrière te Balla bëree ni mu doon bëree mooy offensif ñëw si moom su ko mënul jëlee su su ko mënul teel jàpp jëlee ko fi mu nekk rek day day day day doy waar si Balla Gaye day xaw a tëj bërëm Ah. mooy foog mu teel ko atteindre. waaw suy dox di ko jël foog mu teel ko atteindre. wax ni mu. bëree li day dëggal boppam bëri combat bi du def une minute wala deux bu dëggalee boppam ndax combat bi avantage Boy Niang lay doon wala avantage Balla Gaye. gaaw mu doon avantage am parce que bu boobaa day bëre contre nature. xamee wu ko loolu. soit day arrière moom ñëw jël si la suy ñëw àndax benn vitesse bu am doole nga xam ne da lay egg fu sori. comme ni mu ko defee contre bàyyi ma ñoon si. Euh, li ñuy wax diminution de la masse avec de la vitesse. da ngay wën da ngay da ngay yëngal poids day oyof. dëgg la bu ngay loolu la am na. booy ñaa mën na egg Balla Gaye fu sori. Hmm. waaye su ko fa eggee tam foofu mu gaaw ndax su gaaw Balla Gaye da koy mbot. parce que bëreem la woon ci mbapat bëreem la ci mbapat waaw jamono jamono qualifié ak yeneen combat yoo xam ne mbër bi day dem si wetam rek mu mbot ko Prince euh, ci làmb nga nekk mhm. euh, làmb ji man dama jàpp ni làmp mafia la ak waa kër waa kër Aziz Alen Ndiaye ak waa kër Kandji yi te làmb mafia yow da nga leen xam ndax yow promoteur nga ni ñoom ndax mhm. ñaari camp promoteur la ñaari camp yàggu ngeen mbër pour yow làmb ji est-ce que différence bi dina jóge ci ñaari camp yooyu noonu wala pour yow làmb ji ci ñaari mbër yi la yem. ñaari camp yi ku si sóoraale sa morom rek ñàkk parce que ñaari camp yooyu dañuy jouer si combat bi ku si sa mbër jël pression adversaire bi euh, dal si kawam rek koo koy ñàkk combat am si côté boobu. Hmm. comprendre nga fi may dégg naa par exemple suñu ñëwee si làmb ji waa kër Kandji di sóoraale waa kër Aziz Ndiaye euh, sóoraale bu grave dañuy ñàkk hmm. avantage boobu moom mbër bi dootu ko amati waxuma dañuy ñàkk combat bi mais bu dee tey vingt cinq pour cent la si joué vingt cinq pour cent yooyu dañ koy ñàkk ku si nekk da nga war a si sa mbër bañ a joué si violence bañ a intimidation jéem a intimider parce que ñoom ñëpp après lamb bu lamb jeexee ñëpp ay frère lañ. dëgg moo tax ku si ñëw daal li ma leen wax mooy ñu focus si seen mbër mais ku si focus si sa camp euh, morom rek euh, mun na la indil jafe-jafe. ñaari camp yi kan moo ci gën a mën làmb bon du man tey Kandji production xaw ma ndax day wàcc si géew bi euh, wala du ko def mais su ko defee lu bees lay doon si moom. te lu ah, bees soo koy def gan gan nga si doon tafaa nag yàgg na si. ndax tëgg naa Boy Niang 2014 biñ koy signé dafa amoo ñëwoon signé ko moo ko indi si làmb ji mu daan Boy Niang Aziz nag ah bàyyi dañoo yàgg wàcc si géew ñiin géew waaye côté àll bi nag a ah, ku fi gën a daj ci kër gu baax ji yaa si dal <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci yow di la di la jox rendez-vous semaine prochaine caatu yo caatu daaw da faal ak gin bu yoof dinañ ci waxtaan yaatal ci am nañu face à face fii ci Instagram bi le mhm. neuf le neuf janvier euh, mhm. man yow caatu daaw da gin bu yoof waaye amaan nañu face à face incha le dix huit janvier direct ci bi prince noonu la incha allah ñu ngi bëgg ñëpp jaajëf sama jaajëf prince